Ousmane Sonko placé sous placé en garde à vue allez euh, ñu continuer nañ ci dellu si ci kanam. donc loolu la Babacar donc euh, ay manifestations commencé nañ ci Ziguinchor fi nga xam ne nag euh, maa ngi wax ak yéen maa ngi marché ci leen ci 54 bi daal nañ ci ay yëpp na. baari li nga xam ne nag moo di circulation bi ay ndaw ñoo yëre ay li nga xam ne moo di ay xeer ak. la dugg ci li nga xam ne moo di circulation bi. 54 dina naqari eh, gérer ci police yi ndax dafa yaatu. waaw c'est ça exactement dafa yaatu waaw bu yaatu la. ci HLM Alimo. Ablaye Diop. waaw Ablaye foo ne foo toll. waaw El Hadj Abdalah. mais alhamdulilah bi ko gars yi yëgee. dañ mhm. teel a li xam ni mooy mooy nekk ci mooy tranche bi àndul euh, centenaire bi. Mhm. li tegtal mooy mën yi. wala mhm. leen gars yi a xoj teel leen a tas ba fi may wax ak yow nii pour ñu jëm ci biir taw topp ci. oui laaj Assane. moo tax ma nañ sànq nañu nañ nañ ci nañ ci nañ ci wax. te vrai que ñi ngi am ñi ngi ñi ngi fi ci lu 15 angle 6 nag di yëngal. Euh, xam na itam euh, police bi war te seetaan tam. Mm. ah war nañoo war nañoo seetaat loolu gis ko bu bu baax a baax. incha allah moom. <laughs> na ku nekk ci. Eh, euh, aw aw ragal la nga wax noonu. Abdou soriwul fii. Abdou waaw nekk. wax rek di lu jëm ci yéen yow li nga mujjee daanelee noonu. Hmm. yaakaar naa tey jii war nañu bàyyi xel édifices yenn yi. Hmm. ndax am na ci yoo xam ne yu vulnérable la am na ci yoo xam ne yu ñu yu susceptible d'être la yooyu aussi war nañ ciy bàyyi xel. Hmm. bu baax a baax. li li may euh, wax rek mooy fii sànq euh, il y a une quinzaine de minutes wala une vingtaine de minutes daanaka place de l'Obélisque dañ ci dégagé woon ndax euh, ñii di gendarmerie bi ñu génnee seen char yooyu. dañoo ñëw songu attaqué ñi nga xam ne ñoo di manifestant yi ñoom ñu daal di taw dugg biir koñ yi ñu dem leeral lépp loo xam ne yéen yi yéen euh, xam ne moo di grenade yi dañu dégagé woon lépp loo xam ne euh, nekkoon na aux alentours de la place de la nation waaye xale yi dafa mel ni ñoom dañoo déterminé maa ngi sànq kuy tooñ naan ne sénégalais yi raag ba quatorze heures dañuy dem añi waaye ñii dafa mel ni dañoo war ndax euh, bu ñu ah, gisee benn koñ ñu baaxee leen ñu génn ci beneen koñ ba noonu la ñuy def. Abdou. waaw urgence Ziguinchor euh, Lamine Ba salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar. Ah, ah, lu xew. Babacar euh, li nga xam ne nag xew na mooy liñ doon jox suba ba léegi mujj na am xale yi génn nañu di taal ay pneu ci kaw tali yi fa nga xam ne nag maa may wax ni maa ngi marché ci leen daanaka ñëpp jamono ji urgence sur urgence Lamine. Euh, Ousmane Sonko placé on placé en garde à vue allez euh, ñu continuer dinañ ci dellu si ci kanam. donc loolu la Babacar donc euh, ay manifestation commencé nañ ci Ziguinchor fi nga xam ne nag maa ngi wax ak yéen maa ngi marché ci leen ci 54 bi daal nañ ci ay na bari li nga xam ne moo di circulation bi ay ndaw ñoo yëre ay li nga xam ne moo di ay xeer taal nañu donc à plusieurs pour li nga xam nag moo di circulation bi ñu bloqué ko carrément xam naa nag fu mu nel nii yàggatul xëy na léegi police si fii nii mais circulation bi dagg na complètement ndaw yi déterminé nag soli seen i euh, donc tenue euh, nga mel ni euh, ba luñ gisee xam ne pare nañ ngir jàmbarloog li nga xam ne nag moo di policier yi ñu ngi ci marché leen ñëpp wàcc nañ Babacar ñoo ngi toog topp mbir mi nag di jubal fa nga xam ne nag moo di cinquante-quatre ba ndaxte dégg nañ ne foofu it tamit daal nañ fa ay pneu bloqué li nga xam ne nag moo di circulation bi Babacar cinquante-quatre dina naqari gérer ci policiers yi ndax dafa yaatu voilà c'est ça exactement dafa yaatu voie bu yaatu la. jërëjëf Lamine Mbacke Vision Show sama classe gi miinul si Gicoor 54. boulevard 54 ah d'accord d'accord deux voies la sax waaye de part et d'autre voies yi dafa nekk ci digg bi rek waaye diggante voies yi kër yi sax am itam aw aw xàll la. moo jëm pak frontière wutali frontière Sénégal Guinée Bissau. mu ne foofa la manifester yi kat yi jëm. waaw fa lañ jëm ndax boulevard 54 moom boo fay xeex di nga am espace di nga mën a. fàggandiku bu fekkente ni gisoo loo xam. Euh, mm. foog na. Euh, Alimu Ba la ñu wax ne mi ngi boori HLM wala jàppandeegul. Euh, Alimu jàppandeegul lii nii dafa jaxasoo sax waaye foog naa kii ab Abdou Diouf a ma de. waaw maa ngi aywa. waaw fii nag yëf dafa gën a takkarnaase waat. yow yaa ngi boulevard du général de Gaulle. centenaire voilà maa ngi foofu centenaire. maa ngi ni jàkkaarloog gaynde gi ñu dessiné ci place de la nation. waaye ca wet ga li nga xam ne soo duggee ci jumaa ji moom moo dugg ci biir koñ bi noonu. Euh, daanaka fii ci ci ci Colobane en face dafa am manifestation yu métti yoo xam ne ñoom ñoo fa am sànq gis naa benn fourgonnette bu bip boo xam ni doole la ñëwee ci bërëb bi waaye dafa ñëw daal di wëndeelu arrière def euh, ay manière am euh, daal di demaat policiers yi nag ñu ngi nii jàkkaarloo ko gune yi luñ leen sànni ci grenade lacrymogène ñoom ñu for ko sànniwaat leen ko gis nga lii cocktail molotov la lii cocktail molotov la ndax dafa dal rek daal di tas ànd ak Euh, safara su bari ci kanamu policiers yi lii nag ku mu dal nga am jafe-jafe yu rëy rëy rëy moo tax euh, police euh, peloton bi nga xam ne ñoom ñoo jàkkaarloo ak bule yi ñu ngi joxe ordre pour ñu arrière ñu ngay arrière ñu ngay arrière di dellusiwaat ci seen position initiale go gune yi chargé nañu li ñuy sànni nii lu dangereux la gune yi chargé nañu ñoom ñu ngay arrière li ñu leen di sànni ci ay grenade lacrymogène moom la ñuy for di leen ko sànniwaat li defar itam li nga xam ne sànq nii mën nañu wax ni euh, ab liquide la bu àndal boo xam ne safara su suusalee dafay tas loolu nag lu lu ama ama am danger la ci li nit léegi gendarmerie dañu repli waatoon ñoom ak seen i char daal di dellu si waat ci nga xam ne moom moo di caserne bi waaye yëf yaa ngi nii di ëppaat doole ñoom ñu taalaat seeni i char jaar fa ñu jaaroot ngir dàqewaat gune yi loolu moo fi am fii ci place yi nga xam ne moom moo di place de la nation raxasoon nañ ko sànq li ñu naan ci ci wàllu tubaab euh, euh, l'armée a pris les les les positions de des manifestants loolu lañ defoon ñoom armée bi di waa gendarmerie waaye ñoom manifestant yi dellu si waat nañu jàkkaarloog police ba mel ni police dañoo xaw a euh, am i jafe-jafe ngir contenir leen ñoom gendarmerie ñu taalaat seen i char yooyu daal di toppaat ci yoon wi loolu mooy li nga xam ne moom la. xam naa char sax day doon. leneen. waaw mën wax lance eau foog naa noonu la waaw dafa mais mook Sarr nag dañoo nuroo. Mhm. Euh, li nga xam ne moom moo di euh, seen euh, véhicule blindé yooyu nga xam ne daanaka véhicule de combat la yooyu la ñu yor ay lance grenade la ñu yor ñoom tamit mooy li nga xam ne moom mooy dafa assaut yooyu ma lay wax ba tax na gune yi xaw nañu calmé waat maa ngi leen di seetlu ne lañu jàkkaarloog police. dinañ jël ci yow Abdou ndax Ali Mouba mi ngi wax ni HLM. foofu it dafa nuroog lu tàng lool noonu la Alioune. waaw Alaaji Babacar loolu la ñuy wax ndaxte fii boo xoolee depuis euh, Colobane euh, ba HLM Manchas mi mun nañ jàpp ni daanaka c'est mort ndaxte euh, nit ñi dañoo bay cet avion te lépp loo xamante ni daanaka ay njaay la. te maa ngi jàkkaarloo ni ak marché Colobane bi gis benn intense fumée boo xamante ni mi ngi jógee ci côté boobulee. xamul euh, waaw kolos mi ñuy wax nii. autoroute bi ci kaw autoroute bi la am yu ñu taal foofu ay pneu ci kaw autoroute bi fi tolloog maa ngi koy gis ba à maa ngi koy gis intense fumée boo xamante ni doy na waar gis naa itam euh, benn auto blindé police euh, xam naa waa BIP. ñu ñëw fii di topp xale yi parce que dañoo jóge euh, ci place de l'Obélisque fii daal mun naa la wax ni lu metti la te apparemment sax euh, di nga gis ni station yi yëpp dañuy def attention euh, daanaka ñu ragal daal gars yi ñëw ndaxte voilà ñu ngi nii maa ngi gis waa gendarmerie di ñëw daanaka dañuy ñëw di chargé xale yi yaa ngi dégg en fond sonore ñoom maa ngi leen di gis en deux blindés bu ñu jógee place de l'Obélisque euh, pour charger euh, daanaka manifestant yi jógee foofu di wutali euh, côté HLM lu metti la daanaka fii ci côté en tout cas Colobane ak HLM maa ngi leen de gis ñuy tourner dem ci côté kon marché HLM bi ñoom ñëpp foofu la ñuy dem intervenir xam naa luñ doon wax affaire fumée boobu daanaka loolu moo tax kon ñuy dem foofu xool lan moo tax yëf yi takkar naa si foofu maa ngi koy gis lakk-lakk bu metti daanaka intense fumée loolu la ñuy wax fii Babacar Fall bu fekkee ni loolu la ñuy jàpp rappeler rek. waaw léegi foofu ni foofu nit ñi di daw di wutali yow it dawal xool lu mu dégg nga ñu woowaat la waaw jërëjëf Mouhamed euh, Aliou Ba El Hadj Assane ñu ngi ñuy wax ni tam. Mhm. deux voies problème circulation dafa am dëkk bi tey. ah mhm. évidemment mhm. deux voies yi nga xam ni moom moo nekk ca. Euh, buntu jaar buntu grand théâtre ñun dañ ko tëj dans les deux sens. Mhm. xam naa tey ñibbi geeg couvre-feu yi dina compliqué même en temps normal rek Dakar dafa xatoo. exactement moo tax loo ci mënti dégg jàmm gën ay. waaw je ne cesserai de me répéter. mën nga ko euh, Université Cheikh Anta Diop jaw Mbaye wax nga ñu amoon na yëngu-yëngu nga ni dafa gën a tàng. waaw Babacar si affaire gën naa tàng lool lool lool ndax étudiants yi. dafa mel ni ñoom ñëpp danoo gën a mer ndaxte ñoo gis fi nga xamante ni moo di policier loolu lépp ay étudiant la policier yi dàq nañ lu leen lu toll ci ay presque quatre cent mètres fi nga xamante nii moo di immeuble bu ñuy wax direction du contrôle budgétaire jamono jooju ñu ngi foofu ñoom dañ leen doon dàq presque ñuy daw di wone ginnaaw parce que étudiants yi danoo bari woon lool lool lool moo tax sax su ne nii am nañ renfort ndaxte camion blindé bi moom ñëw na lu toll ay cinq voire sept policiers ñu ngi ci ci biir di commencé dox ndànk wutali li nga xamante nii moo di étudiants yi maaye fi ne nii moom jamono ji tàng na lool grenade lacrymogène yi fu ne lay jógee xeer yi tamit fu nekk lay jógee Babacar. jërëjëf fu ko soriwul point E Pape Fara Ñing euh, sunu natango TFM nga ni Auchan bu point E gars yi dafa mel nii dañ ko tàmbalee taal wala lu koy nuru. loolu lay nuru dugg nañ fa taal waaye lépp luy xeetu poisson yi lu mel génne nañ jot nañ cee sax génne yàqate ko fii ci buntu bi. mu nekk nag lu doy waar am na benn oto sax mu ñu taal na le mu nga dañ jutoo ko taal nañ ko ba mu jeex tàkk tàkk tàkk ci wetu mairie ba euh, benn genre pick-up la ñu ko taal mu ngay tàkk ba léegi fu ne ñu taal fay fu na nag ñu ngi ñëw ah Auchan bi nag dañoo mujj outil sécurité privée ñu daal di ñëw nag taxaw ca bunt ba waa sagam ñu ngi fees dell am na ñeneen ñu ñëw di taxaw daal waaye am na vandalisme bëri bu ci am mhm. même station bi si nekk ñoom arrêté nañu mujj ñoo wër nit ñaa ngi yor ay inspecteur di mhm. daal di ñëw di jéem a rawale di daal di tëj euh, situation moo xam fii ci point E oto yi dàkk taaliku na ak li nu mel a mu ne circulation bi xaw na bi métti ku ñëw da ngay dévier daal di dem oto police bi nag dafay ñëw jaar rek jàll xaw leen na dàq mais ba léegi situation mu ngi noonu taxaw ñu ngi taxaw ci buntu Auchan. jërëjëf Pape Fary ñu ngi Mohamed. waaw sëñ Fall ñoo ngi ci jokko bi ak kilifa mu di Serigne Abdourahmane Kounta porte-parole euh, xalifa euh, général.